mooy lan. dañoo jàpp ne euh, ay juristes wax nañ ci ku ci mel ne maître jàpp na ne y a que la date change leneen changé wul mais des hommes politiques comme waa PDS ñoom nee nañu dañoo reprendre lépp dugal seen candidat. xam nga tamit wax dëgg ñooñu jotul. oui mais attendez man liir naa aussi nee naa la liir naa candidat yële tamit wax leneen wax li mel ni du Ndoye wax waa PDS wax position am na ñeneen aussi ñu wax beneen position mais élection présidentielle du rek élection présidentielle ça engage la responsabilité de tous les Sénégalais. et sénégalais yooyu confier leur avenir et leur sort au président Macky Sall dama jàpp ni bu ñu écarter dara si si lu nekk. Mhm. nañu dem ñu waxtaan. et de bonne foi qu'on discute les voies et moyens pour que le Sénégal reste dans cette trajectoire de pays démocratique enviée par par par par, par tout le monde. bu ñu nekkee ci disposition yi rek je suis convaincu qu'on encore cette étape on la franchira haut la main comme on nous avons franchi en 2000 avec l'arrivée de Wade au pouvoir mm-hmm. comme on a franchi cette étape en avec l'arrivée du président Macky au pouvoir je suis convaincu qu'en nous franchirons cette étape Macky Sall mu pouvoir bi dans des des meilleures conditions possibles qui vont préserver les équilibres et l'aura du Sénégal. est-ce que xam ne ngeen organiser wul élection avant le 2 avril l'histoire retiendra que euh, dérèglement calendrier électoral bi euh, la présidentielle. oui mais vous savez. je préfère la stabilité bu ñuy jàngale dimanche du mois de février. et que a ko soppi. mais mais je par rapport à la je pense que tous les sacrifices sont nécessaires. e cette situation boobu la ñu toll. Mhm. man je ne regarde pas les questions de raménement d'aménagement je regarde le pays. l' nationale bëggoon naa ñu taxaw ci tuuti par rapport ak euh, seen euh, communiqué nee nga ma seen institution à part indépendante d' accord naa ko ak yow mais euh, sagesse bi président Sall am nangu ñoom. à travers leur communiqué gisuñ ci gisuñ ci loolu. oui mais mais loolu mooy ne. mais loolu mooy dëggal ñoo yor réew mi. ils parlent pas le même elles le président waxoon le février da am na jafe-jafe entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire c'est vrai l'Assemblée nationale a reconnu la décision mais ne s'est pas empêché de faire son commentaire loolu tamit ñoom ak pouvoir judiciaire ñoo nekkoon en confrontation loolu moo loolu moo indiwoon loolu moo aussi justifié li tax président jëloon décret bi. loolu mhm. dafay dëggal. li président waxoon démb ak barki démb président de la république moo nekk la clé de voûte des institutions bu institution amee jaxasoo il faut mu jël mesure mesure boobu la jël conseil constitutionnel ne ko ci man ci ci ci ci aussi ci ay attribution am ne ko li nga jël noonu antuwul munuwul. Mhm. moom mu nangu ko te mu amoon yeneen pexe yu ko may mu remettre ko en cause donc dama ni posture bi yëpp assemblée nekk en conflit avec la, le conseil que mu am jafe-jafe président élevé wu nekk au-dessus de, tout, de toutes ces institutions prendre une décision décision de justice ñëwaat mu ne d'accord naa ci danaa ko mettre en œuvre danaa waxtaan ak ñëpp ñi ma war a waxtaanal pour arriver à ça je pense que c'est ça qu'il faut retenir et maintenant ñu trouver un moyen de régler ces conflits parce que l'Assemblée nationale aussi pose un vrai problème la souveraineté mm fois les les attributs du pouvoir les attributions du pouvoir constituant sont remis en cause par le conseil constitutionnel c'est un débat ce débat là il faut le vider après pour que règle yëpp mu leer bu règle yooyu leeree mais pouvoir conseil constitutionnel mais am nga jugement moom ak foo ko mënta teg boo ko attee te nga am pouvoir yi tubaab juriste lu ñuy wax erga omnes. mais ñoom seen dugg ci mbir mi est-ce que politique laalu ko li tax ma laaj la ko mooy euh, commission d'enquête bi ñu bi ñu bi ñu mettre en place euh, fay na ginnaaw bi juge bi jëlee affaire affaire yi en en main. loolu mooy euh, kon ñoom est-ce que amati nañ ci leur leur mot à dire. bu fekkee ne politique laalu action bi ñu mën a woon waa waa waa assemblée nationale. non assemblée nationale dafa am ay pouvoir de créer des commissions d'enquête mais yoon moo leen wax ci seen loi organique. bu leen ko li ko sous-tendre kay laa bëgg a wax. li ko li ko li newoon ci suuf. mais li newoon ci suuf mooy. politique moo ko laal non non dañuy wax ay accusation ñu ñu war ko wër ñoom leer nëb nëbbutuñ dara nëbbuñ dara parce que commission d'enquête boobu résolution bi dañ ko liir kanamu ñëpp wax ko. donc bu amee ay jafe-jafe yu mel nii assemblée nationale ne dama bëgg a gestu parce que il va de l'avenir du Sénégal. il y ci tiroir yi mais attendez loolu tamit xam nga xam nga loolu yëpp c'est une appréciation souveraine du bureau de l'assemblée nationale. bii fas parce que am na man dégg naa ay commissions yu bëri bëri. xam nga commission yu nga xam dañuy wax ne way euh, salaire yi fayuñ ko xam nga loolu. du soxla loolu moom c'est ah, ministère des Sénégal nag war nañ cee jàngataal lu bëri parce que ñu bëri tey ñu doon wax démb ñu doon wax démb ci populisme di wax wa juge yi dañ leen corrompre lii nii naa dañ leen def nii dañ ñooy saluer position conseil constitutionnel mm-hmm. moo tax ñu war a jàngale xale yi ni parfois ñu yóbbu ci mbedd yi xam ni parfois aussi les hommes politiques sont égoïstes mm-hmm. ku ci nekk sa bopp ngay xool nañ ci xool suñu réew xool ci yàlla parce que ñu bari fii réew mi bu jaxasoo ak ku nekk da wax ngay dégg ay kilifa dina li nga wax fii da nga ko wuyoog suñu borom. damay doon problème damay wax toujours man su ma su ma demee Kaffrine ci sama militant yi. ma ne leen nañu moytu di wax lu dul dëgg. wax lu dul dëgg ci jàkk ja. Mhm. wax lu dul dëgg ci permanence ak wax lu dul dëgg ci biir néeg ba gisuma. ci en tout cas ci téere yu njàng yàlla def ci différence. kon nañu nañu xam ne lépp lu ñu ci wax fii dañu ko lay ak suñu borom. Mhm. mais mieux nañu protéger suñu réew. réew mi bakkan bakkan bu bu ñam dund ñam dee ëllëg suñu woy bu ñu fi bàyyee réew mu tasaaroo réew mu jaxasoo réew bu nga xam ni fondamentaux yëpp dem mais suñu gàcce du ay suñu gàcce su suñu gàcce sax parce que ñu day fekk dem nañu mais suñu sët suñu progéniture danañ comme li nga ko waxee sànq l'histoire retiendra il faut que l'histoire retienne des choses positives classe politique bi am na occasion unique de se réconcilier avec elle-même chacun dans ses attributions ñu nekk opposition nekk opposition ñu nekk pouvoir nekk pouvoir mais qu'on se respecte et qu'on se parle sur l'intérêt sur sa s'agit de l'intérêt national ah. mais opposition politique mënuñ ko def ci rancune ci coxor ak ci méchanceté c'est pas acceptable. ah concertation dialogue dina ci ñëw ci kanam tuuti parce que am na solo te gis nañ que ne jamono ji moom ça bouge beaucoup mais avant loolu trois mois yi am dernièrement président Sall amu ci responsabilité. ban responsabilité xam nga président Sall tout est venu. non xam nga du report de la présidentielle. mais yow bu fekkee ne tey dañoo ne tëj leen tëj leen tëj leen sept rek. nga dóor fii nit loolu nga ne loolu mooy responsabilité tëj leen seen TV non décision de justice am na fu ñu koy décision ak décret ak luñ mate yoon may na la fi nga ko mën a xeexee mais ñoom Malick Gakou du ñu am cour suprême mhm. dafa recours am na ñu waxoon ni am na ñu wax ni am na ay juristes yu d'accord ni mais décret kenn waru ko attaqué ci conseil constitutionnel ci cour suprême nga ko war a attaqué mhm. conseil constitutionnel mandargal dafa expliquer li mu mu mu mën a wax ci décret bi conseil bi expliqué na ko itam wax ni euh, parce que décret bi dafa laal luy jëm ci processus électoral moo tax ñu dugg ci. mais loolu yëpp interprétation la kon xeex bi du xeexu mbedd xeexu xel la ak xeexu droit. Mhm. kon nañu nañu privilégié loolu bañ a bañ a bañ a sacrifier ay doomu jàmbur mais loolu moo tax. loolu loolu d' accord naa euh, que c' est c' est à déplorer euh, maa ngi encore une fois massawu famille yu nga xam ni ñoom ñoom di leen jaal ci ci loolu ah, président la République tam di li njaalu président de la République ak njaalu gouvernement bi parce que lu lu naqari président lu métti la. Mm-hmm. parce que warul am ci mbirum élection. Mm-hmm. moo tax ma ne lii yëpp nag jàngat la e président wax na ko. danañ leeral lépp lu ci nekk ba nga xam ne ñu xam ñu situer les responsables. Ah, leeral bi dina ci ñëw ci kanam parce que lu am solo la aussi mais euh, li waraloon coow li yëpp ci sa gis-gis ndax tey jii fay na li tax ma wax loolu mooy Rose Wardini par exemple renoncé na ci candidature am bàyyi na euh, Karim Meïssa Wade segg nañ ko sànni fële commission bi fay na yëf yi ñu ngi kii maanaam tey jii ni est-ce que on peut se diriger ci ay xalaat loo xam ne problème la. yow nga bëgg a jël non je veux avoir l'avis de <laughs> l'homme politique. non da nga ma a jël l'opposition nga li nga ne Karim ko ci fële. non yaa ko xalaat yow yaa ko jàpp mais dama jàpp ni lépp loolu yëpp nag y compris le PDS qui est aussi un acteur majeur du jeu politique mhm. waxtaan ba danañ ci bokk waxtaan ba bu ñu waxtaanee li waxtaan bi tënk ñu ne lii la waxtaan bi tënk man dama bëggul ñu jiitu waxtaan bi parce que yooyu yëpp ay bandé les muscles chacun à gauche à droite c'est pas la peine dañuy dem dialogue dialogue yi fay nekk ay nit njaay la ñuy ñu waxtaane ko ci suñu teg ko ci suñu réglement ak suñu charte réew teg ko ci décision ay conseil conseil décidé ko teg ko ci intérêt réew mi ñu waxtaan bu ñu waxtaanee boo paree lu ñu lu ñu waxtaan bu ñu d' accord danañ ah li d' accord nañ wax lii d' ci booba président de la république ak institution judiciaire yi danañ ci am lu ñu wax.